ko njëkkee ci suñu bopp muy laayante biir goo xam ni dana jagal sunu wàllu yàlla jagal sunu wàllu àddina ndax yàlla mi ñu bind lépp lu mu xool ba joxoñ ñu loola rekk suñu ko toppee suñu njariñ moo ca nekk ay ñàkk topp ga ay duma la ñuy jariñ yal nañ ci yàlla musal di gërëm bu baax bokki internautes yi nga xam ne ñu ngi topp jataay bi fu ñu toll di jiital ci cant gi ak nuyoo beeg ngërëm li jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Cheikh Alassane Sène yàlla ngërëm li muy sàkku ci yonent bi yàlla na ko ko ci yàlla defal lu kawe njortam tey nag suñu tomb ak yéen ñi ngi ko indi ci xormaal waajur wala jox ko gëdd bi mu moom ci doom muy loo xam ne yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala moo ko santaane joxoñ ko ci alquraan it ne defee leen ko ni ma leen ko sante yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala baada audu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim yàlla wax na ci alquran ne waabudu llaha wala tushriku bihi cheyan wa bilwalidayni ixsaanan yàlla nee na digal naa leen ci alquran ne na ngeen ma jaamu bu leen ma bokkaale dara waaye lu jëm ci seen diggante seeni wayjur na ngeen fexe ba mu rattax ngeen def ko ni ma leen ko sante kon yàlla bi mu ñu jaxeñee boppam ba noppi keneen lañu orienté waat muy wuy jur toflu fa kenn moo tax wuy jur moomu mbokk mi ñu bëgg boo demee ba nga xamante ne dooleem néew na ndax yàlla nga koy wax ci alquran ci beneen aaya ne wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bilwalidayni ixsaanan imma yabluganna cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman waxfid lahuma janaaxa dulli min arraxma wa qul rabbi irxamhuma kama rabbayaani sagira yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala nee na man sa borom day farataal naa ci yéen ne na ngeen jaamu man sama borom na ngeen ma jaamu man yàlla su ngeen ma jaamoo ba noppi na ngeen rafetal seen digganteeg seeni wayjur seen kem kàttan nag lu yàlla santaane nag la ca gën mooy def ba tële ndax moom loo duus duusal ca lam la sant moom xam na ko sunu borom bi subhaanahu wa taala waaye mu orienté la ci wayjur nag mais fiñ la gën a soxlaa mooy fi ñu demee ba tële koo xam ne carrière am yépp daf ko daw ngir sa njariñ carrière am yépp daf ko daw ngir sa intérêt ngir bëgg sa réussite waay waay kooka boo demee ba dooleem néew yow yàlla defal la barke na nga ko geesu ci sa wërsëg waaye bul ko ñooru yàlla yemu ci ak ñun sax daf ne na nga toroxlu ci sa kanami waajur wàcce sa bopp ndax noo mën a toll ci àddina rek ñoom la euh, mbokk yi dangay gis gis jur bu meree doom sax la mu koy njëkk a wax mooy bu ma faatoo nga torox kon dafa mel ni bu dee taxawoon di jël si wéyjur pare na pour dem bàyyi fi doom mbokk yi palaasu dee ku la ko jëlal ci dund kooku amatuloo fayam ci àddina moo tax wéyjur bu la jiitoo sax lañu bëgg ci moom mooy da koy ñaanal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon doom ji gën ci doom yi mooy doom ji jokk wëllëri wéyjuram gannaaw bi mu fi jógee waaye am na ñoo xam ne tey bu seen wéyjur wanee gannaaw ku mu fi bàyyi woon te ngay kóllëre rek dagg nañ buum googa yàlla nañ ci yàlla musal kóllëre dañu koy jokk mbokk yi waaye rawatina nag gu wéy jur ndax koo jokk kóllëreem ci sa wéy jur te sa wéy jur nekkatu fi rek mel na ni bu doon dund yaa ngi koy doxal loolu mu bëgg kon nañuy jokkal wéy jur yi lañu soxla waaye bul yem ci jokk gi bul fi jóg buñ fi jógee waaye dee leen ñaanal foo toll del def istigfaar di leen ko jox del def ay salaatu ala bi di leen ko jox del jàng alquran di leen ko jox ndax ñoom kat loolu rek la ñu dese ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali na ci xaddis ne nit dina dugg aljanna fekk fa tuyaaba ju yéeme yéeme yéeme mu ne yàlla sama borom man lii fan laa ko jëlee parce que lii fàgguwuma ko woon ci àddina ñu ne ko danga fi bàyyi woon doom ju baax ju la doon ñaanal yiw woowa moo nekk nii tey ñu di la ko fayee kon li nga ciy déggee mooy doom daal bu wéy jur di sonn ci moom bëgg bu tëlee mu taxawu ko la waaye doom daal bu wëy jur di sonn ci moom bëgg bu fi jógee mu di ko fàttali ak jokkal ko la mu bëggoon a dox moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax daf ne ida maata ibnu aadama inqataa amaluhu illa min salaasa ñu ni ko yaa rasulullahi ban la mu ni amalun sadaqatun jaariya aw ilmun yantafiu bihi aw waladun saalihun yad'u lahu yonent bi sallallahu alayhi wa nee na doomu aadama bi daal bu faatoo activité am yëpp dagg na ba mu dese ko ñett ñu ne ko ban ak ban la mu ne mooy njariñ lu mu fi bàyyi woon lu mel ni tool boo jëmbat daara joo tabax teen boo gas nit ñi di ci féexloo ko lekk ca njariñ la mu di la fekk ci sa bàmmeel wala a xam-xam bu baax boo xam ne danga ko xamle woon nit ñi di ci jariñu lu leen jariñ ci seen àddina ak seen allaaxira yàlla di la ko fay wa illaa doom ju baax joo fi bàyyi mu di la ñaanal kon mbokk yi liñ ciy déggee rek mooy doom ju baax daal mooy dimbali way juram kenn mënta am nag la ca yàlla te dimbaliwoo ci say way jur kon nag mbir mi mbokk yi yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te yonent bi daana wax ne nag aljannatu taxta aqdaamil ummahaat seen aljanna yi mi ngi ci seen suuf ndëggu yaay yi lañu ñu ci jublu mooy boo wàccul ba àgg ci suuf doo jot ndëggu la waaye ndëggu kenn du ko jote ci kaw bopp kon yàlla nañu yàlla defal dégg topp ñu di leen jox daje ci beneen jataay wa aqiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu